da ngeen am tuuma. Hmm. tuuma ji nag xam naa ne du du du du du loo xam ne lu nekk lu mën lu mën lu mën lu mën a wér la. Hmm. ndax nit ñi nit ñi nit ñi dañoo bokkut xel yi bokkut jikko yi bokkut yaakaar naa ne eh, journaliste bi nga xam ne am na xel mu rafet xel mu baax am na jikko ju baax te si dara boroomam. yaakaar naa ne dana sàmm la muy bind ak la muy wax. kasaalika sabaan bi it noonu rek la dem. kon na ngeen ngeen góorgóorlu bu baax. xam ngeen xam ngeen dëgg xam ngeen fen xam ngeen luy dëgg xam ngeen fen di ngeen góorgóorlu ba luy dëgg rek na ëpp seen seen i wax ak seen i bind ak seen i yëngatu. la dul dëgg na ngeen góorgóorlu lu baax di ko wattandiku seen kéem kattan. jërëjëf Mbacke foofu rek laa ci yem jërëjëf Mbacke jërëjëf. foofu foofu rek laa ci yem. noonu dong la demee bu leen jombale dara gisu sëriñ rek ñu ne nga defe ne da da moom taxawaayam bi daa jomb déedéet. ah jëmukaay wutukaay benn yàlla rek la yàlla rek fi nekk. waaye dafa moom moo waxaat boppam ne ki gën a tedd mooy ki gën a ki gën a ragal yàlla. wax jeex na. jërëjëf sëriñ ak taalibe bi foofu la. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. wala ngeen fi yàgg lool bokk góorgóorlu bu baax maag yéen a yem képp ay jaam rek lañu fa suñu borom yàlla boo ko boo nu digal boo nu tere <laughs> noonu rek la demee. Ah. jërëjëf la la la la yàlla yàlla suñu moom mayoon mën a fëx rek wuti si yàlla. doon yàqal dara. doon yàqal dara ci suñu cëru adduna bi. ndax suñu borom.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 salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absar safar